dal leen nag jàmm nag seen notre chaîne bi nag di info 2S TV di fi jàngatee nag lépp luy actualité politique dal leen nag jàmm nag ci xibaar li gën agul fës nag ci xibaar ginnaaw nag moom mi di Antoine Félix Diome ginnaaw nag moom mooy amee ba mu daal demee foofee nag pour fekki woon biis bi nga xam ne nag moom lañ daal di taaloon. ci noonu nag loolu daal di nay def ay rumeur maanaam daal di nay créer benn buzz wala benn polémique ci Sénégal ku nekk nag di lam-lame nan nag chauffeur boobee génn doon wax kooku nag ab policier la ñi naan nag du policier loolu nag jur ab polémique bu rëy nag fii ci Sénégal Antoine àndoon nag ak ki nga xam te ne nag moom mooy Antoine Félix Diome foofee nag dem teewoon ci li nga xam te ne moom mooy jéye jooju daal di xewoon foofee loolee nag ab bis la boo xam ne nag dafa daal di tàkk ñu sànn ci li nga xam te ne nag moom mooy ab cocktail molotov taf mu doon nag mbir moo xam ni mbir mu yéeme la nag mbir mu doy doy waar mu nga woon xewee nag foofee nag ca côté yaraax loolee nag doy na waar loolee nag ci li nga xam ne moom mooy euh, manifestation yi ci la amoon kon nag loolu nag moo gën a gul fës actuellement ak li nga xam te nag ñoom ñooy manifestation yi ñoom ba léegi ñu ngi nekk ci seen euh, manifestant loolu nag moo gën a gul fës